Merci, cher collègue. Guy Marie Sagnan, suivi de Diallo mbokk yi nuyu na leen yéen ñëpp ci seen tour euh, ak seen euh, sant sànq fii nii. le ancien ministre mbay Ndiaye toogoon fii muy wax fekk ñun ñu ngi ci réunion ñu ne ko amoo sañ-sañ pour wax fekk député yaa ngi réunion ñun ñëpp ñu laajte pour que mu génn effectivement mu génn gars yi nit góor walla jigéen da ngay nekk ci principe boo amulee principe nekkoo nit ñun nag principe yi ñuy jiite mooy li nga xam ne démb daganul woon mënul dagan tey donte ku ko def APR la bokk Pastef la bokk Diomaye président la bokk wala bokkul feneen donc perturbation yi amoon fii ce matin yàlla mënul def man ba ma encouragé ko ak ku ko munti def muy benn waaye waaye Amadou Mame Diop xanaa tey nga xam article règlement intérieur xanaa tey nga gis article règlement intérieur ba naan na nga koy appliqué oui ku fi perturbé fii da ngaa war a génn ñii liñ fi def du dëgg du yoon waaye Amadou Mame Diop ñaari at a ngi ngay gérer xaalisu assemblée nationale règlement intérieur ne ñetti weer yu nekk da nga ñu war a jox bilan at bu nekk da nga ñu war a jox bilan annuel depuis deux ans amul benn député fii. bu xam xaalis bi fu muy dugg xanaa gisoo article yooyu xanaa gisoo article yooyu Amadou Mame Diop moo tax bu fekkee Amadou Mame Diop da jël sama ñaari collègue naan leen bu leen ma fonton yow ñaari at a ngi yaa ngi ñuy fonton ñaari at a ngi yaa ngi fonton askanu Sénégal ndaxte xaalis bi ñu la dénk tax ak lempo citoyen sénégalais ya donc yaa ngi ñuy fonton ñaari at ngi loolu nag bu noppee. mbokk yi li ñu fi dajale jarul xuloo li ñu fi dajale jarul xuloo dafa amoon président boo xam ne bu bëgg askanam mu ne dugub mun nga ci def cere waaye dugub mun nga ci def sàngara waaye cere moo ëpp solo loolu jarul xuloo li ñu fi dajale mooy soixante quinze milliards xaw ma soixante seize milliards HCCT ak conseil économique social et environnemental 76 milliards pendant cinq ndax politiciens professionnel yi dañ koy séddoo seen biir ak seen clientèle wala ndax dañ koy jox askan wi loolu moo ñu dajale te loolu jarul xuloo ñii nga xam ne jox seen camarade de partie ñii nga xam ne jox seen clientèle politique loolu moo leen gënal nañ ko wax te wàccu toog askan wi seede waaye man am naa sañ-sañ ne toog naa ak waa Enampor yoon diggante Brin ak Bandial ñu ngi bëgg a dee rawatina ci nawet bi toog naa ak waa Niassia yoon diggante Jalan ak Kakit dafa métti amul goudron te yéen ñëpp seeni commune seeni département bëri na gox yoo xam ne ñu ngi sonn di bëgg a dee ndax ñàkkum yoon soixante-quinze milliards yooyu war na fa dugg dama ne waaw dëkk bu mel ni Guéréo dëkk bu mel ni Dionewar dëkk bu mel ni Bargny ak ñoom seen ndoxu géej baa ngi nangu seeni almeer ndoxu géej baa ngi nangu seeni kër te ngir loolu ñu mun ko saafara foog ñu teg fa ay doj yu rëy foog ñu tabax fa ay digg te digg yooyu xaalis la léegi nag yéenay xool am ngeen sañ-sañ ne li leen gënal mooy soixante-quinze milliards yi ngeen séddoo ko yéen waaye ñun am nañ sañ-sañ wax ne li ñu gënal mooy ñu recruter si ay enseignants li ñu gënal mooy ñu tabax si ay écoles génnee suñu yenn xale yi ci yenn situation yi vous vous rendez compte le CM de Tambouy Bignona 100 pour cent au BFM toutes les classes sont des abris provisoires nous avons des enfants yoo xam ne foog ñu génne leen ci abri provisoire yooyu man nag sama xel dal na Ousmane Sonko dañ ko nomme premier ministre muy dem seetaani match football yóbbuwul moyen de l'État kooku bu ma waxee ne budget Sénégal dinañ ko yore nu mu waree naa ko woolu wuteeg ki nga xam ne dafa ne man am na huit milliards sama patrimoine mu ngi toll ci huit milliards waaw waaw xam ngeen luy sàcc Macky Sall moo ko sàcc huit milliards da ko sàcc dafa yàq Sénégal def lu raw golo lu muy def ca àll ba Macky Sall moo def fii ci Sénégal lu raw golo lu mu def donc waaw je vote pour la suppression pour que ñu dugal xaalis bi ci askan wi je vous remercie La parole est à notre collègue Ndialou Bakili, suivi de Bilaliba. Merci président. Asalaamaaleykum. Président maa ngi lay nuyu. chers collègues honorables députés maa leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak si sa sant monsieur le ministre euh, de la justice euh, garde des so maa ngi lay nuyu di nuyu aussi le ministre euh, du travail ainsi que vos collaborateurs yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen dalal di nuyu presse bi di nuyu population bi ñuy déglu yëpp xam naa tey li nga xamante ne moo ñu fi tax a daje tey mooy ñu exécu ñu xool projet de loi bi nga xamante ne moom la ñu soumettre ba xam dañuy di le conseil le haut conseil des collectivités territoriales ak le conseil économique social et environnemental xam naa ne du nekk loo xamante ne lu bees la si ñun ndax ñun ñëpp ñu ngi ko doon xaar en tout cas man honorable njalu Ndiallo li damay wax léegi ne dama koy voté ndax li nga xamante ne moom moo dellu si ñaari institution yooyu seen budget man dama jàpp ne ñu ñu bëree wax nañ ko fi sànq dafa am ay priorité ci biir priorité yooyu mu am yoo xamante ne par rapport aux besoins de la population dañ see war a taxaw loolu moo tax ma ne dinaa ko voté ndax boo jëlee lu mel ni le financement de la santé nañ si wax ko xoolee day ñëw jël en ñu en troisième position ça veut dire que lan siy def doyul donc man d'accord naa ñu suspendre ñu ñu ñu supprimer ces deux institutions pour fonds yooyu ñu dugal ko foofu. boo jëlee si la lutte contre le paludisme et les MTN surtout MTN yi nga xamante ne dëkk yu bare si biir Afrique yu si bare éradiqué nañ ko fii on a du mal yooyu ba léegi ñu ngi toog di ko xeex. te ñoom actuellement seen budget dafa manqué pour xeex boobu ñu mën ko réussir te seen gap ñaata la mu ngi si 1 milliard 15 milliards yi ñuy wax am na ñoo xamante ne dañ ko xeeb mais ñooñu xeebuñu ko seen campagne boobu boo jëloon 1 jox leen dinañ mën bu xam ñaata nit la ñu mën a sauver par rapport ak ça donc ñiy wax ne dañ koo xeeb boobu fekk na ñoom dañoo xamul nga jël même le tabagisme feebar yi nga xamante ne tabagisme moom moo koy indi. chaque jour mu lor ay nit chaque jour mu am ñu si ñàkk seen bakken ñoom tam ñu ngi wut fond pour xool naka lañ koy xeexee tey jii bu ñu jëlee ci fond boobu jox leen ñoom itam dinañ sant te duñu xeeb 15 milliards yi nga xamante ne li si jógee as tuuti dem si ñoom duñ ko xeeb loolu moom bokk na si li nga xamante ne moo tax te gën na ma motiver pour ma voter ko. sans compter nag les professionnels de santé yi nga xamante ne chaque fois ñu grève bu teyee ñu ne indemnité de logement bu subaa ñu ne ba léegi ñu ngi koy kaas ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ñoo ngi koy wax. ñooñu itamit ñu ngi xaar lu ñu leen jox lu ñu leen renforcer ñu jël la dette de la CEMI chaque jour ñu wax ko même bu fekkente ne ñu ngi def ay jéego te am na loo xamante ne avancé nañ ko les mutuelles de santé sont là toujours ñu ngi am ay dettes yoo xam ne war nañ leen ko jox actuellement tey jii xam nañ ne population bi ñu ko soxla bëri na ñu bëri bëgg nañ faju ci mutuelle de santé yi soxla nañ ko donc ñooñu itamit bu ñu jëlee ci dette bi ñu am jël ci lii jox leen ñooñu soxla nañ ko te duñ ko xeeb pour toutes ces raisons là te yooyu rek laay cité si côté santé bi man damay voté suppression bi laa dette intérieure bu ñëwee waa FERA wax nañ ba sonn les travailleurs AMA Sénégal SOTRAC chaque jour ñu casse pour ñu fay leen seen bor la grève du personnel des collectivités territoriales aussi mi ngi fi ñoom it chaque jour ñu ñu casse pour ñu fay leen li nga xamante ne moom lañ leen war a am donc man naa ñu suprimé li nga xam ne mooy ñaari institution yooyu ndax ñooñu mën see gis seen bopp. au niveau de l'Assemblée nationale ñu ngi nii war a def contrôle de l'action gouvernementale amuñu ay assistants parlementaires yoo xamante ne moom la ñuy soxla c'est chaque jour ñu kaas ko depuis bi ñu fi nekkee ba léegi ñu ngi koy kaas tey jii buñ ko supprimer au moins ay assistants parlementaires ñu wutal ñu ko ñu jàppale ñu ci suñu liggéey fii loolu dañ koy soxla sachant que ñi fi jot a nekk ci assistant parlementaire ñu ngi fi te mënuñu leen fay teguñu leen dans de bonnes conditions depuis boobu ba léegi ñu ngi koy kaas te ñu war leen intégrer def leen dans de bonnes conditions yooyu yëpp war na mën a tax tey jii ñun ñëpp ñu voté loi boobu chers collègues bi may mujjee lu mu monsieur le ministre les personnes handicapées la loi de la la loi d'orientation sociale bi ñu ko voté ba léegi en mai deux mille deux mille dix ba fexe ba def exécution bi ma lay wax nga def boo demee ne président de la république mu jublu si pour ñu régler problème personne handicapée bi incha allah jërëjëf. merci chers